organisation. Pourquoi ils n'arrivent pas à s'organiser Vraiment. Parce que ñu ngi ci climat bu encore bu favorable. ku nekk mi ngi génn naan nañ nañ jàpp date bi nañ jàpp date bi mm-hmm. lu waral actuellement mënoo leen organiser au moins ngeen am benn benn cadre d' autant plus que Malick Gakou aussi bu ñu ñëwaatee def dem déclaration ne na ñii andi seen culture fiscale nii nañu andi vérification seen double nationalité est loolu du andiwaat beneen situation boo xam ne vraiment. beneen pëccoxoo boo xam ne ki fi nekk mën na ko mën problème yi nga xam ne yéen a ngi koy andi au niveau interne yéen seen biir d'abord ñu jëm ci élection yoo xam ne vraiment moom la ñu soxla nu mu gën a gaawee ñu teg ko mais actuellement mhm. quand on voit da ngeen diviser te cette division boobu noonu ngeen di andi donc dafay andiwaat wax bi Macky Sall waxoon donc si vous n'arrivez pas à s'organiser donc d'autres forces organisées dinañ ko dinañ jël li nga xam ne moo pouvoir est-ce que mënoo leen organiser wu une bonne fois pour toutes ñu dem vers des élections sans pour autant ngeen mais lu suñuy divisé wu c'est normal parce que dañuy dem sur une élection présidentielle C'est tout à fait normal. L'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Et effectivement, dans le jeu des ambitions, ku nekk il faut nga bay sa waar il faut ku nekk nga matérialiser, manifester davantage sa euh, ambition. Mais yàqul dara rek qu'effectivement que euh, les candidats qui sont retenus, ils sont en train de se voir, ils sont en train de mettre quelque chose en place pour mën a suivre le processus électoral pour mën a xam effectivement que élection yi a ngi yéen a ngi jaxasoo actuellement ci ay dates, kii mi ngi proposé date, kii mi ngi proposer ay ay dates est-ce que yéen a war a proposer ay dates aussi. non xam nga ne euh, on appelle tout tout tous les Sénégalais actuellement appellent à des concertations. Mm-hmm. à une concertation sur un seul sujet. Mm-hmm. mooy nañu kañ la ñuy dem élection mais libre à un candidat mu proposer une date. mais xam ñëpp xam ne si c'est le président de la République moom la yoon may tey ak mu euh, mu proposer une date bu nga xam ne moom la ñu war a dem élection